dalal ak jàmm yaa ngi koy wax léegi euh, journée mondiale de la drogue mu nekk bés bu nga xamante ni euh, dañ ciy xeex lépp lu utilisation wala boog trafic de drogue euh, mais bu ñu ko contextualiser ci Sénégal actuellement bés bi dafa dafa dafa tombé ak ay saisi record ay saisi yu important yu nga xamante ni ñu ngi koy daal di def ban jàngat ak ban gis-gis nga am ci loolu. waaw saisi yi moom il fallait s'y attendre saisi yi moom. fallait que ñu xaar ko parce que Sénégal dafa nekk ci géographiquement point bu stratégique dans le monde te itamit day nekk zone de trafic zone de transit mais aussi day nekk zone de consommation parce que ful mbir di jaar bu yàggee ñu jëfandikoo ko tey jii bu ñu xoolee ni ñuy jëfandikoo Sénébar ci biir euh, Sénégal noonu la ñuy koy jëfandikoo ci biir Afrique noonu la koy jëfandikoo partout dans le monde entier. Mhm. Sénégal nekk na zone de trafic yàgg nañ fay euh, zone de transit parce que yàgg nañ fay jàpp ay ay ay saisies yu doy waar yoo xamante ne. Mhm. dafay yéem ñëpp daal. mais loolu warut a jaaxal kenn mbir mi dafay gën a yokk te tey jii li nga. xamante ne mu war waaw parce que pourquoi pas mu wàññeeku waaw mais xam nga tey jii su fekkente ne euh, États-Unis d'Amérique la ñu mënul. éradiquer malgré leurs moyen financiers malgré leurs moyens militaire malgré leurs moyens euh, euh, euh, vraiment colossal déployés sur le terrain mais ñun mënuñu ko def parce que nous avons des réalités sur les frontières li ñu mën a def mooy foofu je na appelle aux autorités ñu gën a may les forces de défense et de sécurité li nga xamante ne mooy ay moyens pour ñu mën a combattre le fléau parce que itamit man li ma jàpp mooy sama analyse bopp mooy saa yoo xamante ne jàpp nañ benn camion am na yeneen camions yu rëcc ci jàll. parce que fii ñu toog di waxtaanee drogue am na ñoo xamante ne par exemple le commerce étant très lucratif. Mhm. ñoom ñu ngi toog di def ay séminaire di def ay réunion di seet ñoom itam naka la ñuy jaaree pour jàll. Mhm. parce que ils sont très en avance sur les forces de défense et de sécurité ils ont des moyens inimaginables. Mhm. donc il faudrait que vraiment aussi suñuy forces de défense et de sécurité ñi mën leen a may di jox ay moyens yu yu yu yu yu conséquents. pour ñu mën a faire face parce que ñoom itamit dañu am ay moyens. te itamit il ne recule devant rien ak devant absolument rien. il y a il y a il y y a y a il y a il y a il y a quelques années. Mhm. Sénégal dafa suivre parce que dañu doon mettre l'accent toujours sur la répression l'application de la loi sur les drogues mais aujourd'hui force est de constater que il faut changer de de de, de fusil d'épaule. mm alors au lieu de mettre l'accent sur la réduction de l'offre on a changé, on a, mis l'accent depuis un certain temps avec le CILD sur la réduction de la demande. Le CILD, par euh, bi nga xamante ne euh, euh, président Macky Sall demoon assemblée générale des Nations Unies bi bi mu fa le CI le le le l'ONUDC avait invité le président Macky à apporter une réponse le Sénégal en 2015 était classé parmi les pays les plus touchés par la consommation de drogue et notamment parmi les jeunes donc ci lañ commencé di def ce qu'on appelle au niveau du du du CILD le plan stratégique national actuellement le Sénégal a un plan stratégique national mais nous butons toujours sur les moyens les moyens font défaut mm-hmm. parce que tey jii la société civile est prête les forces de défense et de sécurité sont prêtes mais il faut que les moyens suivent tey jii on met l'accent sur la réduction de la de, la demande c'est-à-dire aller vers les populations aller vers les communautés installer la communication parce qu'il y a trop de sujets tabous mmh. la drogue et da nit ñi dañ ko jël comme sujet tabou boo xamante ne mhm. waratuñu dañu war a dépasser foofu adduna dafa toll ci beneen paradigme nekkatul sujet tabou mhm. parce que lu tax lu tax waratul nekk sujet tabou mooy bu njëkk ba dañ ko jàppoon comme un problème de délinquance mhm. ñi ko daan def dañ leen jàpp comme ay délinquants nga ni ne dañ leen war a jàpp tëj leen et mhm. mais tey jii gis nañ ne ce n'est plus un problème de délinquance mais c'est un problème de santé publique tout à fait ñi koy def c'est c'est c'est des malades qu'il faut approcher qu'il faut orienter vers des mhm. structures de prise en charge et qu'il faut aider à s'en sortir euh, en tout cas